fay fut mais nga wax li nga xam. waa léegi euh, nee nga da ngay wàññi du président. explique explique nga ton concept de démocratie de la concordance. Euh, mhm. alors justice bi ban réforme majeure nga ci apporté. xam nga justice bi benn problème lañ am majeur et eux-mêmes je trouve qu'ils n'en parlent pas assez mooy ñoom dañoo matul te loolu dama ci liggéey ba xam ko c'est-à-dire que liggéey bu téeméeri nit war a def. yow yaa ngi jël jox ko fukki nit loolu mooy seen problème majeur recrutement problème mu recrutement te xam nga loolu fan la jóge aussi programme d'ajustement structurel yi tu sais ENA à l'époque ENAM à l'époque demoon nañ ba ay 3 4 la ñuy recruter man je connais <laughs> des gens de ma génération yoo xam ne bu ñuy dugg ay ENAM pour nekk magistrat ay 4 la ñu recruter après am na benn moment ñu dem bay recruter ay 30 ay 40 mu jogaat après ñu waat magistrat yi dañoo matul liñ leen di liggéeyloo nañ ma baal mais xajul seen bopp yi benn nit antanu ko donc le première réforme bi ngay def au niveau de la magistrature xale yaa ngi fii génn fac de droit yi UGB Dakar fu ne nañ leen jël ñu recruter leen Sénégal mënoo fi jàng ba am maîtrise ñu ne da ngaa ak 4 ak 10 yooyu ñuy jël la ñuy bàyyi on les recrute foofu laa lay wax ne da nga war a am courage devant les institutions internationales bu ñu la naree gëmloo ne non yow yaa ngi recruter faygoo suñu bor ñoom waxuñu la bul recruter parce que beneen raison de li leen intéressé mooy xaalis bi ngay recruter boo ko recruter doo leen fay seen bor seen bor kese kese kese moo leen tax a jóg yow boobu moment da ngay recruter loolu mooy loolu mooy première réforme di nga réaliser deuxième bi le le le rêve des assisards Euh, relatif à nu mu tudd à la coupure du cordon ombilical. Mm -hmm. entre le parquet et la chancellerie. bind naa ko. est-ce que di nga nekk. déjà pouvoir li ñuy li ñuy woowee pouvoir euh, judiciaire en réalité au Sénégal c'est pas un pouvoir benn autorité rek la. tu as ministre de la tutelle boo xam ne moom mooy buur di buum mi. tu as le président de la République qui conseille le conseil supérieur de la magistrature bon yooyu moom ñëpp xam nañ ko mais cordon ombilical boobu da nga koy dindi mais surtout nga éviter la politisation de la justice. donc da nga donc yow doo nekk. Euh, non du loolu bi yooyu bind de la magistrature parquet dootul dépendre ci sans chancellerie bi. non loolu c'est procureur nu mu tudd ministre bu moom mooy nommé le procureur xam xam nga foofu laa lay wax c'est-à-dire gis nga homme politique da ngay am vision da nga wax fi nga bëgg a jëm dafa am yoo xam ne ay techniciens ñoom ñoo la koy réglé ci loolu lañ nekk c'est des questions yoo xam ne dinaa la ci jox une réponse tranchée bu programme bi génnee mais li ma lay wax mooy le principe mooy que le gouvernement. waratul am droit di wax le procureur lan lay def léegi nag techniquement loolu ñoom seen liggéey la gis nga loolu ku fi toog fii ci homme politique di ci dugg dana wax lu ko neex c'est à eux de nous faire des propositions pour xool parce que on ne doit pas aussi être dans la république des juges loolu warul am waroo am ay juges ay magistrats yoo xam ne rek ñoom lu leen neex la ñuy def non il faut trouver l'équilibre je discute avec eux pour xam lan mooy équilibre bi mais gëm naa ne président de la république ak gouvernement du ñoom ñooy takk wax juge lan la ñuy def et même ça il faut rendre hommage aux magistrats gis nga coow li ñuy indi yëpp ba man sax may wax naan des fois magistrature bi euh, libre ñu mais procès yooyu est-ce que mat na 1 pour cent des procès ñaata procès moo am tribunal du travail tribunal du commerce même pénal dans tous les domaines déggoo ko wax Sénégal ngay gis une toute petite entreprise hmm, dajeeg état ci procès gagné état te kenn du ko dégg donc les magistrats globalement ñu ngi toog kenn xamu leen ñu ngi def seen liggéey avec beaucoup de compétence fi ñu leen di xalabe mooy ci procès yi bu amee président de la république wala ministre de la justice ñëw bëgg ko def affaire politique. loolu nag la sénégalais di gis et foofu ngay dindee. corps des des procès yoo xam ne dafay impliquer des hommes publics. Mhm. des hommes politiques des journalistes et cetera. Euh, loolu moo constitué aujourd'hui. c'est une infime minorité nag ci magistrature.